Voilà, mesdames et messieurs, amis et chers téléspectateurs de la Mindiss TV, bonjour à toutes et à tous. Comme nous l'avons vu, c'est biir émission Esprit Sportif. Euh, tey nag seen télévision Mindiss TV ñëwoon fi nga xamante ne ni tey mooy Patar Sine mu nekk na xew-xew bu rëy bu fi am mooy ci wàllum football tey nag euh, ñaari ay yu ñeent ay ASC yu mag war fee tasse tey jàmmarloo ci li nga xamante ne mooy phase départementale demi-finale nga xamante ne ci lañ toll tey équipe bu njëkk bi nga xam ñaari équipe yu njëkk yi nga xamante tey ñoo war a tase mu nekk Garmi di Sine bu Fatick wala jàkkaarloog euh, ASC cosaan bu Jawle. équipe match bi ci tegu nag mooy ki nga xamante ne ne mooy deuxième match bi mu nga xamante mooy euh, boole ñaari équipe yi euh, Namlor bu Fimela ak euh, ASC Jam Diouf bu Patar bu siin tey nag demi-finale bi mu ngi war a am fay fii ci terrain bu Patar waa ODCAV andi woon ko fi tey nag euh, match bi nag euh, mu ngi war a dérouler à partir de trois heures et demie ci kanam tuuti comme vous le voyez les supporters son la les jour son là nekk leen ci seen biir télévision Mindiss TV di seetaan sport nu mu leen neexee nu ngeen ko bëggee ak ni nga xamante ne tamit foofu ngeen ko soobee parce que avec Mindiss TV vous avez toujours un esprit sportif

ñuy seetaan seen télévision Mindiss TV comme ni ngeen ko gisee tey ba léegi ni ma leen ko waxee ñu ngi fii ci Patar tey nag mu am match yu am solo yu fi am ASC Garmi war a tase ki nga xamante ne mooy ASC Cosaan bu Jawle ñii ma taxawal nag c'est mes jeunes frères ah ba Fatick war a seen équipe yéen da ngeen jógee ba euh, Darel bu Fatick ngeen supporter si Garmi du Sine lan ngeen andi tey exactement. ñun waa Garmi lu ñu andi tey ñëpp xam nañ ko ndax ñun toj dóor nañ équipe ay 5-0 8-0 ñëpp dégg nañ suñ tur ñëw ñëwuñ fii pour caaxaan bi dem dañoo jógee dara ñëw ba Pataar pour troxal dañoo ñëw pour wane fuñ mën ñun dañoo ñëw supporter si suñu équipe dañoo ñëw pour valoriser ne Garmi moo fi naale léegi moo bëggoon xam exactement yéen ndax yaakaar ngeen ne di ngeen gagné équipe bi non ñun yaakaar nañuy dundee chaque jour ndax yow soo xoolee Garmi Garmi équipe bu ko dégg lu mu def dareel équipe du ko gis rek di bañ a yaakaar si moom Garmi moo fi ne. yéen ñi seetaan seen télévision Mindiss TV en ce moment ñu ngi nga xamante mooy capitaine euh, ASC Garmi ñu ñëwoon fii ci nag pour teewal fi waa Fatick pour ko mën a dem final départemental pour jël trophée bi yóbbu ko biir Fatick quoi. nekk loolu mooy suñu objectif. si exactement préparation yi ngeen def yéen war na mën a tax tey ngeen am confiance yéen pour gagner match bi. non ñun am nañ toujours confiance ak ñoom parce que ñun psychologiquement joueurs yi fi nekk yëpp pare nañ psychologiquement waaw ñun détails yi ndaw mënuñoo sonal si football quoi dañ koy gérer après jël ndam li yóbbul ko waa Fatick loolu daal mooy suñu objectif.